boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bokk yi di ginnaaw bu ñu santee suñu borom ko toroxlul bi nga xam ne soxlaalut kenn mooy ki nga xam ne moo bind bi def yépp mooy ki nga xam ne lu ko neex mu am lu ko neexul mooy faxaalun li ma yurid sara ne sayduna muhammad mooy ndaw li mujj yónni moom la yónni mu matale mboolem xeet yépp mu nekk basiran wa nasira ñu ngi ci moom ak di julli ay ay saabaam ak ñoom ak baakaram yépp ñaan yàlla dolli leer ak ngërëm ak barke ci suñu yaakaar Seexuna Alxadim radiallahu taala anhu wa nafaxana bi barakaatihi delle leer ak ngërëm ci mboolem njabootu Seexul Xadim bi ak mboolem ay taalibeem di ñaanal yàlla ki ko fi nekkal si Ahmadu Muntaxa yàlla yàggal ko fi ci dolli gërëm ak sagoom bam lim ko bëgg liggéey lépp mu eggale ko ci ni mu ko bëggee ca ñu ànd ak moom liggéey boobu ñu ñaanal mboolem ay rakam ak mboolem taalibe yëpp dafa leen jàmm ak tawféex ñaanal mboolem jullit yëpp way daw li yëpp ñaan suñu boom wàcce ak jéggal kilifa yi yëpp suñu may leen jàmm ak tawféex ba li liggéey liggéeyal islam lépp ñu mën koy defe ni ñu ko bëggee mbokk yi xutba bi ñu ngi koy jëmee ci jikko bii weesu ñu woon ci jëme ñu ngi doon wax ci yar yar nag mooy indi jikko ju baax tey ne ñu koy ko jëmee ci jikko al islaamu diinul axlaaq islaam diine la joo xam ne jikko la lay defar te xam ngeen ne léegi jikko yi mi ngi yàqu bu baax a baax ngir ñàkk bu yar bi bi xew ci àdduna xoree gi nga xam ne moom lañuy lan lan lan ñu won ba kenn yilifatul kenn moo tax ab yar manqué lool boo ne doxatul kilifa magam ma ngi yërëmatuñ gone jigéen ñi amatuñ kilifa loolu lépp jikko yu ñaaw moo ñu ko teg te bi sallallahu wax na ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq bi ma sunu borom bi di yónni ci jaam yi daa dëkk ngir ma mottali makaarim axlaaq jikko yu rafet la dëkk ngir ma def ko mu nekk ci ban te ñëpp roy ci kon mu mel ne mission bi yonent si doon dox day mel ni defar jikko yi moo moo ko taxoon a jóg innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq kon ñu indi woon dafa ñëw ngir defar jikko yi mooy mooy mission bi ëpp solo ci mu def defar jikko yi nag mooy dangay defar bakkan yi defar xol yi defar cër yi lépp dëppoo li diine bëgg al muskila hiya al axlaq bi ëpp yëpp bi ëpp ci àdduna ak jullit yi mooy jikko yi moo yàq sallallahu alayhi wa na jikko yi yàq mu dikk defar ko jikko yooyee nag mu ngi mu ngi royaat di gën yàquwaat kon nañ ci delluwaat bu baax a baax jàngataat yónnee ci mini sallallahu alayhi waaye jàngataat sunu yaakaar ji itam nga xam ne mooy bi mu dikkee bay yar nit ñi yaraat jikko yi la def Seexul Xadim ba mu dikkee fekk ay maamam ak i waajur yëpp di jàngale di yar waaye nag ba mu dikkee moom daa defaraat nit ñi ba ab murit day mokk day toroxlu du bëgg alal du bëgg adduna loolu sëñ bi ko ko defoon ci yooyu nag mel na ne ñu ngi ciy ñàkk yu bari ay benn benn kon nag ñu ci góorgóorlu baax a baax yàlla sunu boroom bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi ko ci bàyyi tëgg ko ci ndey tëgg ko ci aw melo ci jikkoom la ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim kon jikko lu am solo yi koy yonent bi sallallahu alayhi nag mooy moom mooy Alxuraan waxam aku doxiinam aku toogiinam ak jëflanteem lépp dalaa rafet ni muy jëf ni muy jëflanteeg ku sori noonu ku jege noonu lay jëflanteeg ku ko sori amoon yooyu mën ci xeetam bi lool daa taral ñëpp am dënd bu yaatu mën a dékku doonu lu lu waaye teg rek boo ko gisee xam ko mukk da koy teg lu métti waaye dënd bu yaatu bi kenn du ko xam lewet lool du teg kenn lu diis jàppandi mbir lool amul benn jafe-jafe du ubbi xar kanam mu leer kuy waxal dalay wax ubbi xana ubbi ku ci yow xaram am kanam xar kanam bu ubbiku du tëj boppam mukk lu muy def lu ne day ànd ak waaye day ànd ak cofeel doon koo xam ne ku ko mën a masaatoon ku ne daf lay jëggal da dama ko tooñee bu amee am mën naa kàttanu fay waaye da jëggal képp koo xam ne dog nga ko moo lay jokk danaa wàcc ba ànd ak faqiir yeeg miskin yi ak ak jirim yépp tolloog ñoom lu mu am mbokkoog ñoom yooyu jukko yépp mooy mooy mooy makaarimul ñu ngi koy bëgg a ñàkk néewaa na nga gis borom alal bu mën a wattoo ab faqiir ak miskin ak ub jirim ba tolloog ñoom lu am mën koo bokkoog ñoom jukko yoo fa di amoon bokkoon na ci ñi daa liggéey ci moom day daa ànd ak ñun ci liggéey ba te daa lee daa wëral tam nag ku muy liggéeyloo la la da lay tegloo àtt na te dafay bokk yooyu tam nag bu tax mu tëdd ci liggéey ba rek bàyyi élection ba looy looy def ci kër gi lu ne day dikk ànd ak yow waa kër gi jàppale la ko léegi nag booy liggéeyloo kenn yow da yaakaar na nga teg sa banque rek bàyyi kook ca naaj wa te doo ko may mu noppalu sax yooyu yëpp nag bokk ci makaarimat axlaaq kon jikko lu am solo la Aïsa radiyallahu anha buñ ko laajee lan mooy jikko yeneen sa sallam dane kaana xuluqu alquran yonent bi daal boo ba ma laajee jikko yom xorofaan rek loo xam digle talaat mooy jikko ya lu muy tere doo ko def mooy jikko yeneen sa sallam am nag doomi ndeyam ju ko laajoon tam nag lan mooy jukki yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ko ndax da nga jàng sóoratul mu'minuun mu ne ko ah, aaw danaa ko jàngkee mu ne ko jàngal ma dégg mu jàng xadaf laxa mu'minuuna ba ca waari soona mu ne ko loolu mooy jikko yonent bi loolu mooy allasiina hum fii salaatim xaayison ñoo xam ne bu ñuy julli dañuy ragal yàlla loolu julli julli koo xam ne da ngay këpp këppal rek sam xel du nekk julli gi da ngay concentré wu ci julli gi wala seen wax ne laxum muhridoona al ñi nga xam ne duñ ay neen ay caaxaan duñ ci dugg mukk fu ñu fekkee waxtaan caaxaan wala jëfe caaxaan ñu jóge foofa dem seen yoon wala seen moom li sakkaati faaxiloon ñi nga xam ne bu asaka jotee dañ koy joxe wala seen moom li furoo yum ñi nga xam ne duñ jaaloo mukk duñ seq ak seen soxna walla seenu jaam dara wala siinahum li amaanaatihim wa ahdihim raaxuun ñi nga xam ne bu ngeen leen seqee ba nga dox leen dara dénk leen ko nang leen ko dénk daan la koy delloo nga xam ne bu ngeen amee ñoom kóllëre kóllëre daan ko xam ba du dog ci mukk du dog ci ñoom mukk wala siinahum ala salawaatihim li xaafisuun ñi nga xam ne waxtu julli bu ne basee danañ ko julli ci waxtu wax ulaayka humul waarisuun ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom tonnal ajjana firdaws sax kon ab jikko yooyu ku nekk ci yow wax na doo julli dangay julli fu ragal yàlla ci julli ga doo def ay caaxaan di jox asaka doo njaaloo mukk waaye di sàmm kóolute gun la jox di sàmm kóolëre gu nekk ci yow kooku jukki yooyu mooy jukki yonent bi sallallahu kon na ni góor góorgóorlu ci yooyu moom nekk sortu moom noonu ñu xam ne ñun jullit yi yàlla doon digal ñu roy ci yonent bi sallallahu mooy suñu royteef moom lañu war a roy ci ni ñuy jaamoo yàlla moom lañu war a roy ci ay jikkoom moom lañu war a roy ci ay meloom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne akmalul mu'minina imanan ahsanuhum ki gën gëm yàlla mooy ki ki gën a rafet jikko yonent bi waxaat man de sama borom moo ma yar yar bu rafet addabani rabbi tabi tadiban xasana ndax bi ma yàlla waxee ne xoosil xaf wa mul xurfi waxlin xañ ni jaay lii na laaj gàtt la waaye léppan ci biir yonent bi ba ko yàlla waxee loolu rek ci la ko yar xoosil xaf wa mooy del jéggalee ku la tooñ ku ne dee ko jéggal looloo loo naqar réeru boo rombee bàyyi ko mu jàll del dimbale jullit yi del toroxlu ci ñoom wamur bil xorfi del déglu del dégle lu baax ay njëkk di jokk di jokk bokk di dimbale di jox di joxe di joxe aw yiw waaye di dàq aw ay wax di laa ne jaay lii na del sori ñu réer ku gàttum xel wala ku dof wala ku xamul dara dee ko sori ndax foofa njariñ njariñ du fa jóge mukk jibril alayhi salaam wax na yenn salaam xam na ko bi laa ji génnee xusul xusul xafoo mur bi ruufa an jaahiliina dafa dikki ne ko inna allaha tab inna allaha tabaraka wa taala ya'muruka an taxfuha xaman zalamaka sunu borom nee na ñu ngi lay dégal nga jégal ku la tooñ ku la mën di tooñ dee ko jégal wa tu'ti man aramaka képp koo xam ne xañ na la alalam yow dee ko jox sa alal wa tasilu man xataaka képp koo xam ne mi ngi lay topp bëgg laa bàyyi yow dee ko jox ñett yu mat yu am solo loola ci jikko yu ku la tooñ nga jégal léegi nag moom da nit ñi moom ko tax nga da nga war a fayu fayu ba gën a métti lañuy def fekk dig nga jégale leen la digal waaye koo xam ne ba mu amee dalaa xañoon tan yow boo amee def ko dimbale koo xam ne dalaa bëgg a bàyyi dagg sa diggante moom yow yow def ko jox ko rek yéen bi salaa waxaat na ne ab jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit yi leen mucc saw làmmiñ jullit yi leen mucc saw sa loxo doo leen wax lu ñaaw doo leen ko jëf kooku mooy ab jullit waaye mu ne moomin nag mooy aminahul muslimoon man aminahul muslim koo xam ne jullit yi daan la wóolu ci seen alal ak seen lépp doo leen yàqal dara laa yoxoonuhu doo fan doo fen doo wor sa moroom jullit wala yegg si boo doo ko fen wala yàq soo ca doo ko dok ab jullit du dog moroom jullitam du ko war du ko fen ndax ñu xam ne kullul muslim xaraamun xerduhu wa maaluhu wa damu jullit léppam araam na ci kanam saroo sañoo xas sa moroom jullit sañoo lekk sa alal moroom jullit ci neexu ko sañoo jam deret sa mbokkum jullit def ko loo xam ne dana génn deretam yooyu yëpp dafa araam ci ab jullit daa tax mu ne wal muminu man aminahu naasu ala amwalihim wa anfusihim ab jullit dëgg mooy boo xam ne nit ñi dana la wóolu ci seen alal ba doo ca doo leen yàqal seen alal waaye seen bakkan itam doo ca teg lu ci lu ci noonu lu dul noonu moo tax sëñ bi wax ne uhibbu makaarimal axlaaqi juxdi wa akrahu an ahiba wa an ahaba bu dee ci naaju xalal xaalis sëñ bi wax ne man maa ngi damay bëgg jikko yu rafet jamono yu ne sama kem kàttan waaye bëgguma ku may ayibal waaye bëgguma di ayibal kenn itam daa ne wasfa xansiba bi naasi ulman na ngay jéggale ŋàññ nit ñi ku lay ŋàññ ku ne yow jéggal ko jëbal fay wa sarru naasi man yax was sababa képp koo xam ne yaa ngi bëgg ak xuloo ak ŋàññante xamal ne yaa yës ci nit ñi waxaat ne wasbir xala sabbi waa tuj xaq wa kun kama xala adib mu ne ku la ŋàññ ku ne yow del muñ rek waaye bu ko tontu mukk ku la wax lu ñaaw bu ko delloo muñul ca bàyyi ko te wax la waajo waxoon rek wala amru ala la imu yasub nii wa ahfu suma qul la yaxni nii léeg-léeg ma romb ko koo xam ne ku ma bañ ko soxor mu may xas di ma wax lu ñaaw waaye dama naan ak ah, ki taxu li muy wax man taxu ma taxu taxul ma muy wax jubluwuma ci li muy wax de xane damay jàpp ne moom ma wax ji rek dem sama yoon وإن التصاب والتكاثر من أقبح القتال وأقبح الأحوال xuloo ak ŋàññante ak fen mooy jikk yu yées ci ab jullit mooy melo yu yées ci ab jullit kon yu mat a moytu la te loolu léegi yomb na lool nit ñoo xam ne dañuy sosal rek mer nit sosal ko dara baa nga am ci loom loo naqar daal koy live rek wax ko ci loo naqari wax ci loo xam ne da nga ko sos loolu lépp jikk yu ñaaw la yoo xam ne ab jullit da ko war a bàyyi ñu xam ne mbokk yi jikko ju rafet tegtal la ci gëm ab jullit waaye jikko yu ñaaw tam tegtal la ci ku jullit gu manqué doxful imaan yi mi feeñ ci kuy wax am jikko yu ñaaw xamal na jullit manqué na lu bari Abu Darda nettali na ne sallallahu alayhi wax na ne amul lu gën a diis bis pénc ci balaas jikko yu rafet bis péncee amul lu fa gën a diis jikko yu rafet teg ci nag ni bayna allah la yubqidu alfaahis albasir yàlla nag ku bañ la ku ñaaw lan kuy jëf lu ñaaw di wax di ñaaw ku sunu borom bañ lay doon kon loolu lu ma tamay solo yonent bi sallallahu waxaat na ne giñ naa ne du ngeen gëm wax ko ñetti yoon giñ naa ne du ngeen gëm ñu ne ko man yaa rasul kan moo du gëm mu ne fii allasi laa yamuru jaaroo ba waay képp koo xam ne su dëkkandoo wóoruwul saw ay say lor képp koo xam ne yaa ngi lor sa dëkkandoo wala sa mbokk xamal ne doo am kóolute mukk doo doon jullit kon nag lor sa morom dëkkandoo amul solo laaj dañ koy xam ne ko lu xan aksar ma yudxilu naas aljanna leen moo ëpp ci li tàbbal leen àjjana bu ñu ko waxee yéen bi sana daan wa husnul xuluq ragal yàlla ak jikko ju rafet mooy li ëpp ci li nit di liy dugal nit jikko yu rafet ne bokk na ca am teraanga am teraanga ak tabe ak bég foo toll ku la gis fekk gis la ci mbég yooyu ci jikko yu rafet la ak xarkanam bu leer bañ a ñaggiréel ku la gis mel ne da ngaa mer yooyu yëpp bokk ci jikko yu rafet ku ful azar lor doo lor kenn doo len lenn loo nit doo lor nit ci wax doo ko lor ci jëf loolu ci jikko yu rafet la bokk waaye timalu maa yakunu min annaasi li leen nit ñuy teg ci lu métti rek nga di ko muñ yanu ko waaye loolu na xare rek lu wala lu metti rek bu dikkee nga delloo ko yooyu bokku ci jikko yu rafet wakkas moom xay si laahi mer boo meree te nëbb ko loolu di def loo na xare lool nga nëbb ko ngir yàlla loolu yëpp ci jikko yu rafet la wala yëndul xawli wax ju neex bañ a pang pangi wax jikko ju bokk na da ngay wax day day nooy waaye wax ju tàng jër boo ko defee tam kenn du déglu say wax ak lépp loo xam ne mañ mañu ruus dafay bañ loolu jëkk ci jëkk yu baax la bokk abu abu duree dafa naa dafa laajoon sallallahu alayhi wa sallam ne ko daa bëgg nga wax loo xam ne dana ma jariñ yonent bi ne ko xam ne ko li may déggal mooy ittaqillah da nga ragal yàlla waaye wala taqiran min muhsin bul xeeb ci bul xeeb ci lu baax dara lu mu tuut tuut boo gisee lu baax def ko waan talxaa ak xarit bi ci busir sa mbokk itam tam ubbi sa xar kanam bu leer wax ak moom ba mu xam ne yow jàppaloo ko dara waan tufrixa min dalwika fi inaal boo fekkee kuy wutu ndox itam fànqal ko baag ko mooy kuy kuy sàkk ne rek fexe jox ko dara way na mu ne ko sàbbaka bu la nit ŋàññee itam nag te lam la yi néew ci yow ci yow nga xam ci moom moo xam ne boo ko waxoon dëgg lay doon bu mu tax nga yow nga nga wax la nekk ci moom donte yow xam nga li ñu lay wax dëgg ñëpp xam nañ dëgg ci yow xam nga ci moom loo xam ne boo ko waxee ñëpp xam dëgg bu mu tax nga wax ko loolu yow da boo defee loolu sunu borom dana dana la jox yool bu bëree bëri moom nag bàkkaar ba dana ci yenul riskan teg ci nag wala ban na say an mi ma xawal bu naañeeti kenn ëllëg abu dara ne ba ma ba ma ba ma yonte loolu nag laa gën ci yàlla ne am xar wala gëléem fan ma ko naañeeti kon nan moytu di wax nit du ñaaw ak di ko tuumaal loo xam niwusi ahmad sawfi dafa wax ne wa innama al ummul axlaaqu ma baxeet fa in humu sahabat axlaaquhum sahaboo mu ne nit ab aw xeet fii jikko yaa ngi fa moom fa sax waaye saa bu ñàkkee jikko rek xeet ba dem ab jikko valeur mooy téye ab xeet ab réew Euh, saa bu xoolee ba ñàkk suñu valeur yi amoon nag mooy am kersa am jom am ngor am loo jomb yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne jikko yi Sénégal la woon te Cheikh Mouhamadou Mountakha rek fi réew na ko fa am soxla nee na mooy jom ba jom jeex mooy bañ a des ginnaaw ngor ba war jeex mooy bañ a ñaaw kon nag nit ku ne war na sax ñaar yooyu bañ a des ginnaaw ñaaw ci jëf bañ a ñaaw ci wax allahuma salli wa salli wa barik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi wa atbaahi muhsinin al muhsinin nasal allahu tabaraka wa taala an yarsuqna xusna al xalaq fa inna allaha yuhibbu an yusal wa tuubu boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo